Barthélemy Diaz nag euh, démb amal na ab point de presse ngir daal dikkaat ci doxalinam foofale ca mairie bu Dakar moom nag nee na recrutement yi nga xam ne amal na ko ci Guy Marius Sagna ak euh, ki fi nekkoon capitaine euh, bu gendarmerie di Seydina Omar Touré mu ne moom fu leer la ko teg moom sax nee na kenn munu ko delloo ginnaaw kon ci recrutement boobu nga xam ne kon amal na ko moom Barthélemy Diaz nag nee na bu fekkee ne trésor public dañu ne duñ leen fay seeni salaire moom daal dina xam fan lay jaar. te it euh, dina def daal lépp loo xam ne mooy li war ba ñoom ñu mën leen fay li nga xam ne moom mooy seen ay salaire ba léegi moom wax na ci audience bi nga xam ne mu ngi koy sàkku ngir am kooku président Macky Sall moom nag nee na boobule audience daal dafa bëgg a daje ak euh, njiitu réew mi euh, Macky Sall. en tant moom mi nga xam ne moom mooy maire de Dakar mu jàpp ne ko war na dajeeg moom mu ne sax wante li nga xam ne moom mooy daal Euh, turu Macky Sall wala fu mu bokk ak yi ni mel loolu intéressé wu ko waaye li ko intéressé mooy en tant que maire bu Dakar dafa war a jàkkaarloo ak nga xam ne moom mooy njiitu réew mi Macky Sall ngir sëq moom waxtaan. ministre de l' élevage bu Sénégal di Ali Saleh Diop moom nag gannaaw bi nga xamee ne mu ngi doon amal ab tukki fële ca euh, Mauritanie nga xamle na ne nag nguuru Sénégal dina teggi taxe yi nga xam ne kon teg nañ ko ci njaayum euh, jur gi ngir daal euh, ñu mën a yombal kon ñi nga xam ne ñoom ñooy. Euh, sàmmkatu Mauritanie yi ñu mën leen yombalal kon ñu mën a indi fii li nga xam ne moom mooy jur gi eh, gannaaw bi nga xam ne ñu ngi dëgmal feetu tabaski nee na nag taxe yooyu nga xam ne dinañ ko teggi dinañ ko def euh, ñaari weer balaa ñoo tabaski ak ñeent fukki fan muy quarante ak juróom muy quarante cinq jours gannaaw bu ñu tabaskee ba noppi. ñeent ci juróom-benn sage-femme yi nga xam ne ñoom la yoon tuumaal ci mbirum astu soxna muy ndaw soosu nga xam ne kon moom moo ñàkkoon ba kanam fële ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga te fekk sax mu ngi nekkoon jigéenu wérul ñoom nag euh, fi mu nekk nii daal yoon dafa sàkku ngir ñu daan leen atu kaso waaye boo xam ne nag euh, benn weer lañ cay tëdd. yeneen ñaari sages-femmes yi nag euh, ki nga xam ne moom mooy procureur de la république moom daal dafa sàkku ñu bàyyi leen mu uteeg nag ñeent ñi nga xam ne ñoom le 19 avril ba léegi ñu nga kas tribunal nag war na joxe atam ci mbir moomu le 11 mai 2022 ba léegi ci mbirum yoon ak yoonal la ñuy des muy mbir mi nga xam ne xewoon fële ca Karang muy ab élève boo xam ne daal da doon dóor moroomu élève am dóor yu métti amit beneen élève bu taxawoon di ko filmer ñoom nag tribinal de grande instance bu Fatick bésub tey bi la doon àtte seenu mbir ki nga xam ne nag moom mooy Ibrahima Diaby nga xam ne moo doon dóor beneen moroomu élève ak Baara gay yoon daal euh, daan leen ñu tëj leen six mois de prison yoo xam ne un mois ferme lañ cay tëdd wante itam alamaan nañ leen lu toll ci un virgule cinq million muy un million cinq cent mille yoo xam ne moom lañ war a jox partie civile bi muy Mamadou Lamine Sangaré xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleek réewum Burkina Faso foofa nag euh, sett ci ay soldats ak ñeent ci ñi ñuy woowee supplétif de l'armée ñoom lañ fa faat démb ci alxames ci gannaaw bi nga xamee ne daal ay terroristes ñoom ñoo dal euh, seenu kaw ci fu ñuy wax euh, noor bu dëkk ba ak itam centre nord bu ñu sukkandikoo ci ab communiqué boo xam ne kon l'armée ba ñoom ñoo ko fësal. ce Soudan itam ab manifestant lañ fa faat euh, démb euh, gannaaw bi nga xamee ne nag kon dafa amoon daal ab dajaloo boo xam ne kon dañ doon ŋàññi euh, jël bi nga xam ne ñii di l'armée ba jël nañ ko nguur ga. ñu ne nag ab oto boo xam ne kon ab blindé la boo xam ne kon ñi nga xam ne daal ñoom ñooy force de l'ordre yi muy takk der yi ñoom ñoo ko moom moo jaar ci kaw nit kooku ba mu faatu bu ñu sukkandikoo ci comité centrale des médecins bu Soudan yi nga xam ne nag waa Africa News ñoom ñoo indi seeni wax. bakkan boobu nga xam ne nag faat nañ ko day yóbbu ci quatre-vingt-quinze limu nit yi nga xam ne kon faat nañ leen foofu la ci Soudan bi manifestation yi tàmbalee ak léegi. dañ koy jeexal xibaar sport maître Augustin Senghor di président bu fédération sénégalaise de football moom nag nee na daan yi nga xam ne ñii di waa FIFA daan nañ ko réewum Sénégal te ngeen xam ne bokk na ci ab match boo xam ne dañ koy football à huis clos maanaam benn supporter du ko fekkee mu ne match boobu nag. nee na huis clos boobu nag euh, concerné wul match bi nga xam ne kon moom la ñu am suñu diggante ak beneen le juin te muy première journée bu éliminatoire euh, bu CAN 2023 kon nag euh, li nga xam ne daal moom mooy huis clos boobu dinañ ko appliqué ci beneen match wante du doon match bi nga xam ne moom moo war a dox suñu diggante ak réewum beneen lii la ñuy indoon tey ci xibaar di rafetlu seen teewlu dinañ jox daje ëllëg jaa ngeen jëf.